El Hadj Daouda alors euh, El Hadj Daouda ci réunion conseil des ministres bi weesu président de la république euh, dafa joxe euh, ordre ngir rapport corps de contrôle yi juróomi at yi weesu yëpp moo xam IGE la moo xam nag wala cour des comptes ñu siiwal yëpp ngir xam ndax amoon na ay njuuj njaaj wala naka la amee et tout loolu prétexte la pour ñu taxaw tey El Hadj ci yoon li mu wax. ci wàllum njur njaaj mhm. maanaam duubal alalu askan waaw jërëjëf euh, soxna Naata mm. euh, je pense que loolu mu digle nii dañ ko def mm-hmm. euh, lu waroon la lu ñu war lu ñu waroon a def la mm. ñoom waruñu woon toog sax bañ naan le président joxe na ay instruction pour que ñu siwal li nga xamante moom mooy rapport corps de contrôle yi mm. parce que corps de contrôle boo xoolee ci li nga xamante ne moom mooy loi yi leen régir dañu war at mu jot ñu siiwal li nga xamante ne moo nekk seen rapport à l'exception de l'inspection générale d'État mhm. bi nga xamante il faut que ñu déclassifier ces rapports pour que ñu mun ko génne et mhm. déclassification boobu le président de la République moom moo koy moom moo koy décider mais bu dul ñoom yeneen yëpp ko mu nekk Cour des comptes que mu nekk OFNAC que mu nekk yeneen yi ñoom dañu war di siiwal li nga xamante ne moom moo nekk seen i rapport donc rapport yooyu nag boo xoolee chaque fois euh, li ñu wooyu reddition des comptes mooy dafa am ñu nga xamante ne Euh, dison état bi yëpp sax que mu nekk euh, le la présidence que mu nekk la primature que mu nekk euh, les ministères que mu nekk les directions que mu nekk les agences ñoom ñëpp dañu am budget bu nga xamante dañ leen koy voter te budget bu ñu leen ko voter dañ koy exécuter hmm. budget boo xoolee chaque fois dafay am li ñuy li ñuy wax naan budget de fonctionnement ak budget d'investissement léegi nag loolu nag ñoom bu ñu ko ñëwee par exemple ñu jox leen ko pare dañu war a exécuter ko bu ñu ko exécuter duñ ko exécuter n'importe comment parce que dafa am ay procédures yoo xam ne dañu ko war a respecter ay procédures sur le plan administratif mais ay procédures également sur le plan nga yor budget ko nu mu la neexee ay procédures yi nga xamante da war a respecter maanaam tey tey tey bu fekkee da nga war a da nga war a exécuter benn marché am na procédure bu nga xam ne da nga war a def appel d'offre appel d'offre nañ koy defee ak nan lañ koy defee ba nit gañe ko également dafa am ay procédure donc yooyu yëpp nag bu fekkee jox nañ la budget <coughs> corps de contrôle yi seen rôle moom mooy ñoom de temps en temps am na ñu nga xamante ne annuellement dañuy war a dem am ñu nga xamante ne de temps en temps am na ñu nga xam ku mel ni IGE sur demande sur instruction du président bi dañu war dem pour saytu xool exactement yow lalu nga xamante ne joxoon nañ la ko mu nekk budget budget bu nga xamante ne alalu askan bi la nga war ko exécuter pour des politiques publiques nan nga ko exécuter est-ce que respecté nga li nga xamante ne moom la loi bi wax en terme sur le sur le plan de la procédure administrative est que xaalis boobu nga xamante ne jox nañ la ko utiliser nga ko fa mu war a demee est-ce que est que est-ce que loolu moo tax chaque fois boo gisee ñoom dañuy def ay rapport te seen rapport du question ni chaque fois rek dañuy ñëw rek ñu ne yow def nga naka sa dul noonu des fois ñu wax la lu nga xam ay recommandation pour que nga joyante mm. des fois ñu defal ay recommandation nii nga bindee affaire wala nii nga doxalee mais waroo woon doxalee nii la prochaine fois doxaleel ne. bu boobaa du mujj fenn dañ lay dimbali sax. dañ lay dimbale voilà dañ lay dimbale lu ci bëri lu ci bëri dafay am des fois nga gis rapport yu nga xam yu bëri dañ lay dañ lay dañ lay rectifier xam nga defal ay recommandation ne la voilà la prochaine fois. <coughs> defeel nii parce que nii nga defee demeewul noonu wala compte bi kat ubbi ngeen ko mais compte bee war leen ko ubbi clôturer leen ko compte la xaalis bi war wala compte bi la xaalis war a jaar day am recommandation yu mel noonu gis ni nag yow da nga nekk nit ku nga xamante ne ba ñu la jox da nga luubal à partir de sa moment là ñoom dañuy def li ñuy woowee ay recommandation mm-hmm. demander au procureur de la république pour que mu ubbi ay information judiciaire contre yow mm-hmm. ku mel ni par exemple cour des comptes am na sax possibilité moom si boppam mu dem ba juger la daat lay condamné parce que am nañ chambre de discipline administrative bu nga xamante ne dinañ mën a dem ba juger nit daal di ñëw ne ko yow suspendre nañ la waruñu la jox beneen fonction Euh, na laay koy wax sax euh, étatique pendant une dure de cinq ans am nañ possibilité boobu mais bu demee ba nga xamante ne luubal la nga xamante ne li ñuy woowee détournement de deniers publics à hmm. partir de ce moment là procureur la ñuy demander à que mu ubbi euh, une information judiciaire hmm. pour que yow ñu mën a teg teg teg ci yow daan parce que hmm. li koy waral moo di dafa am benn article bu nekk ci code pénal bu nga xamante ne dafa daan loolu te da koo daan daan bu sévère muy détournement de deniers publics c'est mhm. réprimé par le code pénal mhm. boo jëlee article 152 bu code pénal mhm. daf ne képp ku nga xamante ne dafa luubal xaalisu askan bi dafa am ay daan yu nga xamante ne dañu la ko war a teg voilà euh, Daouda avant ñuy dugg ci daan yooyu sax vraiment parce que aussi am na euh, je sais ni ñu koy rapporter au grand public xaw ma dañoo dese comprendre bu baax wala parce que souvent da ngay dégg ñu ne la diw ñu tudd turam ñu ne la épinglé Mhm. par un rapport xam nga sànq yaa ngi tudd nii naan la des fois ñu soññ la pour mhm. rectifier la épinglé boobu est-ce que suñu gisee sa tour mhm. ñu tudd ko ci rapport bi rek épinglé nañ la gis nañu sax aminat Aminata Touré démb xaw ma bataaxal bi mu bind naan nañu ko génne ci yi turam yi ñu dugal ci yi est-ce que tamit euh, on joue pas avec les mots sans vraiment connaître leur sens waaw xamuñu ba rapport rap comme li ma rapport lu ci bëri Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon les autorités euh, instant bi nga xam dañuy def rapport dañu leen ci dañ leen ciy tudd. waa bu ñu nee par exemple kii kat moom moo nekkoon koo xam moom moo dirigé woon ministère sangam bi. Mhm. pendant dure bi nga xamante ni dañuy def euh, saytu bi. bu ñu saytoo ba pare daal di gis ne na nga xamante ne noonu lañ ko noonu lañ déroulé woon procédure yi du noonu dañ ko war a rectifier bu boobaa en ce dañuy def li ñuy woowee recommandation. mais chaque fois boo gisee ñu ne dañu lay demander ay poursuites loolu on cite nommément la personne bi nga xamante ne dañ ne dañoo bëgg nga engager des poursuites contre telle ou telle autre personne loolu dañ koy bind noir sur blanc voilà dafay leer ci recommandation da dangay gis chaque fois boo xoolee ci rapport yi sax ñoom bu ñu defee seen seen constatation yi def seen saytu ba pare dañuy def benn encadré bu nga xamante ne foofu mooy nekk recommandation yi encadré boobu boo ko xoolee ci nga gis ni lii mooy li nga xamante ne moom la ñu moom la ñu ne nañ ko toppee Massamba wala ma dem ba lii mooy montant fixe da ngay gis sax ñu quantifier ko jëpp xaalis bi nga xamante ne moom la ñu wax ne nañ la ko laaj léegi na bu ñu demee nag jusqu'à présent foofu nag dañuy jàpp ne c'est na laa koy wax sax c'est euh, juste des constatations juste des juste des recommandation mm-hmm. ça ne veut pas dire nit ki dafa nekk nga xamante ko coupable il reviendra il reviendra à la justice, à mm-hmm. de voir ndax effectivement li nga xamante ne nañ yow yaa ko def effectivement yow yaa ko def wala yow entre temps am nga firnde yu nga xamante ne bu ñu la yóbboo justice di nga koy indi parce que gis nañ fi ay rapports yu nga xamante ne des gens ont été pour pour na la wax sax ont été poursuivis. Mhm. ñu dem ba ci justice après ñu bàyyi leen bëri na fi. Mhm. voilà je peux je peux soit exemple Abdou Aziz Tall bu LONASE. Mhm. en un moment donné. ki woon nañ ko ba yóbboon ko prison mu def 11 mois mais bañ demee ci cëppaandaw ga dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko acquitté hmm. je de Baratal dans l'affaire des chantiers de Thiès inspection générale d'État épinglé woon nañ ko <coughs> ko kaso après dem bañ ko jugé bañ ko demee ba ci biir dañ koo bàyyi je nga xamante ne rapport épinglé woon nañ mais bañ demee ci cëppaandaw ga dañ ko bàyyi il est pas dit que ni hmm. voilà si danañ la ci rapport rek que tu coupable il faut que justice ci boppam mën a def liggéeyam convenablement pour que ñu xool kii kat li nga xamante ne nee nañ moom moo ko def est-ce que effectivement am nañ firnde que ne moom moo ko def parce que en matière pénale quand même. Mm. ce sont des preuves qui vont déterminer la culpabilité. mais bu fekkante ni comme euh, li xewoon ci euh, cour des comptes ñu ne. force foofu ubbi waaw nañ ubbi information judiciaire. Mm. ci diw loolu lu mu wënd moom. waaw loolu loolu loolu mooy bu ñu nee nañ ubbi information ci diw le procureur de la République dafa war a suivre yooyu. loolu mooy loolu mooy loolu loolu mooy kii bi mooy am lu nga xamante ne jàpp nañ ne ce sont ce son des présomptions jàpp nañ ni kii kat luubal na te lii nag ñun gis nañu par exemple am na écart entre lañ ko joxoon ak la nga xamante moom lañ gis ay pièces comptables donc am na écart bu nga xamante mi ngi toll ci ñaari milliards ñetti milliards ñeenti milliards woo leen ko pour ko mu justifier ñetti milliards yooyu fan la ko dugal su fekkee ne indi na les la mu ko dugal ci li nga xamante moom mooy liggéey bi et à ko bàyyi su fekkee nag dem na lu nga xamante ne gisuloo xaalis jox nañ ko xaalis bi mais mënul justifier xaalis bi nga xamante moom lañ ko joxoon wala gis nañ par exemple dafa am surfacturation wala dafa am ay faux usage de faux à part de ce moment juge bi dafay tranché et dafay condamné à part de ce moment là mu condamné la ñuy doog wax ne nit ki dafa nekk. mais est mm-hmm. euh, ci am ndax ça va changer quelque chose. Mm-hmm. waaw le seen pouvoir bi ñu doon euh, waaw le procureur le pro le ni nga ko waxee. Mm-hmm. dafa nekk nga xamante moom mooy le maître des poursuites moo tax su fekkee ne dañoo bëgg. que ni rapport yu nga xamante chaque fois bu ko jotee da koy transmettre il faut ñu changer les textes hmm. mu nekk lu nga xamante ni obligation la pour moom à chaque fois bu nga xamante ni dafa jotee un rapport bu nga xamante ni dafa jógee ci euh, corps de contrôle yi mu mun koo ubbi une information judiciaire mais en l'état de notre procédure le procureur n'est pas tenu sauf bu dee ay dossier bu nga xamante ne dafa jóge comme par hmm. xam nga xam nga muy cellule nationale de de traitement des informations financières mhm. bu fekkee ne c'est un rapport bu jóge foofu loolu loi bi daf ne bu ko jotee dafa am obligation mu ubbi ci information il n'a pas il n'a il n'a pas son mot à bu dul yooyu xam nga yeneen yi nga xamante ne da koy également moom mooy apprécier parce que moom moo am l'initiative des poursuites et puis moom mooy apprécier ndax da koy def article 32 bu code de poursuite pénale moo ko jox sañ-sañ boobu. mais est-ce que dafa am benn échéance euh, dafa am benn échéance boo xam ni procureur euh, hmm. il est appelé un peu à. Euh, s'autosaisir par rapport ak yenn euh, peut-être enquêtes yeeg rapport yi ci yi ñu tuuñu tuumal ñenn ñi. wala est-ce que également euh, voilà euh, parce que quand man li ma seetlu mooy les procureurs dañoo bëri léegi ci réew mi. Mm-hmm. da ngay gis ñoo xam ni voilà amuñu benn sañ-sañ mais ñuy également teg tuuma ci. mais ñi ngi koy def nii moment bi te liñ koy defee ci réseaux sociaux yi. dafa ñaaw dañuy foto këru jàmbur wax ni mm. loolu aussi également lan la ci. waaw waaw benn mooy procureur tant que li ñuy woowee prescription amut am na possibilité de poursuivre prescription boo jëlee article 8 bu code de procédure pénale daf la wax ni su fekkee ni c'est un délit délit bu fekkee ni nit ki dafa def lu nga xam nañ ko considérer comme délit prescription bi ñetti at la. sauf en matière de détournement de deniers publics en matière de deniers de détournement de deniers publics prescription du trois ans mais sept ans la donc entre nit ki détournement bi muy def mhm. boobaa sept ans après dans tous les cas procureur mën na ko mën na mën na ko topp procureur bi fi nekk bu fekkee ne moom topp ko keneen ku ñëw wutu ko également kooku mën na dépoussiérer waat euh, dossier yi daal di daal di enclencher une procédure donc tant qu'il y a pas prescription on peut bel et bien dépoussiérer ces rapports là et poursuivre ñi nga xamante ne jàpp nañu dañoo def dañoo def ay ñaawteef beneen bi également comme bi nga wax noonu mooy di nit ñi am ñu sañ-sañ ñoom seen bopp jël di dugg ci réseaux sociaux yi def naka su noonu par exemple ñëw naan ay kii am na lii wala kii def na lii wala kii def na lee loolu du sañ seen sañ-sañ amuñu sañ-sañ boobu te loolu bu ñu ko defee également ils peuvent ñoom seen seen bopp s'exposer a de de des na lakkee wax sax des poursuites parce que bu fekkee ni par exemple diffamation benn la bu nga xamante ne article 261 prévoir na ko boo gisee ku mel ni le premier ministre actuel bon loolu ko condamné dans l' affaire parce que am na dénonciation nga xamante ni defoon ba mais Daouda mais Daouda euh, qu'en est-il donc de projet de loi bi nga xamee ni dañ ko bëgg a yóbbu assemblée nationale pour euh, renforcer la protection des lanceurs d' alerte est ce que loolu tamit newul moom mooy andi jeexi jaaxa euh, seen bopp yi que que tout est permis ñoom nañu boole rek waa waaw la définition exacte. déjà déjà déjà comme ni nga ko waxee noonu jusqu'à présent y a pas encore une loi. Mm. donc si projet la. yéen a la doon am voilà yéen a la ñu am maintenant bu ñu ko defee bu ñu ko defee une loi des lois comme ça existent même aux États-Unis aux États-Unis existé na. Mm. tey jii boo xoolee par exemple <laughs> États-Unis on te dit whistleblowing xam nga moom mooy les lancer d'alerte y a une loi qui les protège. Mm. y une loi également bu nga xam ne ñu tudd False bu nga xamante ne depuis la guerre de sécession la existé mais c' est des lois qui sont mm-hmm. yu nga xamante ne du question yow da ngay am benn affaire nga bàcc ko ci réseaux sociaux et consorts déedéet. Mm-hmm. foofu dafa am lu ñuy woowee des inspecteurs généraux yu nga xamante ne boo amee looy looy dénoncer et consorts ñooñu ngay jokkoog daal leen di jox li nga xamante moom mooy dénonciation bi ñoom également ñu apprécier ndax la nga leen jox. c' est assez voilà euh, matière bi jar na pour que ñoom ñu dem da nga def enquête. et que xew ci Boeing. voilà ni ay ingénieurs. ak ñoo xam ni dañoo mate ay lanceurs d'alerte. ñoom ñoom insuffisance ci moteur yi ak na. mais c' pas une loi bu nga xamante da ngay jël rek. wala loo am ay documents officiels nga balancé ko sur la place publique xam nga dem photo kër jàmbur ñëw ne voilà kii lii mooy immeuble Daouda Mine bu mu am fële nangam ak nangam te lii salaire matu ko ay consor pas comme ça que ça se passe. Mhm. voilà a des corps de contrôle ñu nga xamante ni mhm. Daouda Mimé luubal na ko boobaa nga mën leen saisir officiellement dem loo li nga am ci ay preuves nga daal leen ko ñoom tamit ils de te protéger ñi nga xamante ne def nañ ñaawtu ñu mën leen topp convenablement loolu mooy li mooy loi sur les lanceurs d'alerte bu États-Unis par exemple depuis 1863 la donc nekkul lu nga xamante ne lu bees la donc ce sont des choses yu nga xam ne qui peuvent bel et bien exister mais il va falloir qu'on les encadre mm-hmm. maintenant ñi nga xamante ne mm-hmm. defuñu loolu ba pare ñëw di bàcc ay information wala par di dénoncer affaire yu nga xamante ne teguñu ko fenn wala nangam ak nangam y a des y a des articles du code pénal yu nga xamante ne mën nañ leen poursuivre dama la wax sànq dama la wax sànq difa difa diffamation mais tey jii la dénonciation calomnieuse c'est une infraction bu nga xamante ne prévue par le par le code pénal voilà en son article 362 bu nga xamante ne dafay dem ay daan yu nga xamante ne dafay commencer six mois mën na dem ba cinq ans et que article bu code de procédure ñëw ne même bu fekkee ne nit ki nga xamante dafa def dénonciation calomnieuse ba ñu ubbi information judiciaire ñu dem ba ci biir ñu rendre compte que ni yow defuloo dara même bu fekkoon poursuivre ko de demander que donc pour wax la ne c'est des textes yu nga xamante ne voilà nit ki nga xamante ne dafay ñëw di def une dénonciation calomnieuse également mun nga mun nga mun nga ko topp beneen bi également da nga ko wax léegi protection de la vie privée des personnes. Mhm. c'est consacré par nos textes également. Mhm. boo jëlee article 363 bis bu code pénal dafay dafay dafay dafay dafay daan ñi nga xamante ne dañuy ñëw. di joxe par exemple foto ay këru jàmboor wala ñuy génn par exemple nit fekk ko ci biir këram daal di koy photo ci affaire yu nga xam ne sans son consentement loolu également c'est réprimé par le par par par le code pénal juste pour dire que. Mhm. protection des lanceurs d'alerte ne veut pas anarchie. Hmm. ne veut pas dire ku ci nekk. loo xamal ma sàmba xam nga bàcc ko sur la place publique et consort parce que nit ku nekk également da nga am un certain nombre de liberté et ces libertés là ko war a respecter donc loi boobu nga xamante ne dañ koy def buñ koy def. il faut que ñu encadrer ko pour wax ni nan mooy mécanisme bi nga xamante ne soo amee looy dénoncer noon nga ko war dénoncer et jàpp naa ni bu ñu fekkee dañu inspiré wu loi yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo jot a am. Hmm. pour protéger les lanceurs d'alerte nekk loi bu nga xamante ne boo amee looy wax. am na ay corps habilité am na des des des structures habilitées yu nga xamante ne foofu ngay dem pour saisir leen pour que li nga xamante ne war nañ ko def ñoom ñu mun ko def convenable mm. alors sànq Daouda yaa ngi doon commencé wax ci euh, daan yi article 152 prévoir pour ñi nga xam ne dañ leen euh, dañoo reconnaître ni que effectivement dañoo luubal euh, alalu réew mi waaw article boobu dafa def dafa def ñaari catégorie mm. su fekkee ni ki nga xamante ne dafa détourné la des fonds publics bu nekkee c'est un particulier mm-hmm. bu boobaa daan bi mi ngi toll ci at mën na dem ba juróomi at. mais su fekkee ne ko xamante ne c'est un agent de l'État wala mu nekk un dirigeant d'une structure bu nga xamante ne bon état du Sénégal dugal na fa xaalisam ñu lubal ko. dirigeant boobu wala ka nga xamante agent de de la que mu nekk militaire wala mu nekk civil bu boobaa daan bi dafay nekk juróomi at mën na dem ba fukki at. donc loolu mooy loolu mooy loolu la article 152 bu code pénal wax donc pour wax la ni donc mhm. détournement de deniers publics donc bu fekkee da nga ko jël mën na commencé ci at mën na dem ba fukki atu kaso sa ok ça ci nit ki ñu koy tuumal mais xam nga pour terminer waaw Macky ak euh, Abdoulaye Wade yëpp amoon nañu ay disons plan pour jéem a seet nu ñuy traquer ñi nga xam ni dañoo luubal. Mhm. Euh, bon ba ñu commencé sax ak Diomaye dañ ni day marcher sur les traces de Macky et euh, disons Wade. est-ce que yow yaakaar nga ni euh, dison procédure bi ñu commencé. Hmm. Euh, nit ñi duñ ko jàppee ay chasse aux sorcières wala est-ce que dina du nekk rek benn genre ballon de baudruche la. Hmm. waaw man pour jàppee ma koy chasse aux man dama jàpp ne képp koo xamante ne dañ la dénk képp ku la dénk que mu nekk public que mu nekk privé booy doog ñëw il faut nga def état des hmm. parce que pour que nga pour que nga mën ma évaluer man lu ma liggéey. il faut que nga mën a xam fan laa déparé ak fan laa ak fan laa toll. loolu c'est la moindre des choses cest à il faut que nit ñi def ba xam ne ah Diomaye Bas le président Bassirou Diomaye Faye bu muy jël nguur gi fii la fekk nguur gi. Mm-hmm. boobaa nag bu demee ba ca cëppaandoog booy def bilan après buy jeex si nga mën a wax ne par exemple def na jéego wala def wala wala reculer na sur le plan financier ndax nekk na def na lu nga xamante ne dafa fay bor yu mu fi fekkoon ba pare doog am bénéfice, même si leta ne, n'a pas, ne peut pas avoir de, de, de bénéfices. Donc, juste pour dire que euh, réduction des comptes dafa nekk lu nga xamante ne lu normal la que mm-hmm. mu nekk ministère yi que mu nekk direction yi ka mu nekk mm-hmm. agence mm-hmm. ku ci ñëw war nga nga def état des lieux xam la nga xamante ne moom moo fa duggoon en terme de budget la nga xamante ne mooy xaalis bu nga xam ne dañu ko jëloon pour exécuter des politiques publiques fan lañ ci toll lan mooy la nga xamante lañ lan lañ ci def et bu fekkee ne am na luubal bu nga xamante ne am na ci également da nga am obligation loolu noonu nga dénoncé ko au procureur de la République pour que mu def liggéeyam bi nga xam ne moo ko war parce que yow ministre mënuloo ko mm-hmm. le président République sax mënu ko peut-être il peut donner des instructions au ministre de la de de la justice le ministre de la justice daal di donner des instructions c'est que mu nekk deux pois deux mesures. Mhm. waaw ok ñu ne ñii dañ leen di topp ñi la duñ leen di topp donc boo demee ba nga ne ok da ngay def réduction des comptes da boole ñëpp nga yemale leen. la nga xamante ne da nga ko luubal mu nekk alalu askan bi yow Bassirou Diomaye Faye moomu la ko Macky Sall moomu ko woon. Mhm. xaalisu askan bi la et par conséquent dañ ko war a leeral ba ñëpp xam ne lii kat mooy li nga xamante ne moom moo fi def su le président Macky Sall bañ doon wax ni par exemple def na li lii mooy dëgg bi. ndax def na ko wala def ko. maintenant nañ ko defee woon ci ay jamono. def par exemple ay euh, ressuscité ay cours de répression de l'enrichissement illicite bu nga xamante c'est une juridiction bu nga xamante même au niveau international dañ ko dingat parce que la charge de la preuve est renversée mhm. répondre à benn principe général du droit loolu moo nekkoon lu nga xamante dañ ko doon wax il suffisait tout simplement mu jaar normalement si nalaakay wax sax la voie normale. Mhm. ñu poursuivre ñooñu nga xam jàpp nañu luubal lañ sur la base de l'article 152 du code parce que détournement de deniers publics la. Mhm. bu personne ne trouverait absolument rien à redire. Mhm. mais enclencher par exemple une traque des biens mal acquis bon. Euh, muy durer ay année ay année ay année nga jël xaalis bu bëri jël ay avocat jël ay cabinet international ñuy wër à travers le monde di dépenser beaucoup d' argent alors que yow fi mu nii la nga doon wër sax gisu ko xamoo fan la nekk loolu mooy li nga xamante moo nekkoon la démarche qu'il fallait pas faire mais nii nga xamante def nañ ko jëlee rapport des corps de jox ko ñi nga xamante ñoom ñoo les autorités compétentes ñu saytu ko képp ku nga xamante ne laal na ci def na naka su dul noonu ñu mun la topp c' est quelque chose bu nga xamante c' dans l'ordre normal des choses à mon merci beaucoup merci El Hadj Daouda ci jàngat bi euh, tout de suite ñu jàll ci ponk bu mujj muy suñu gan ñu dalal ko.